إمام القدس الحرمين ورسول رب العالمين مملم آه. جل مكة يا صلى الله عليه وسلم هوى كل مجد للورى وجلاله هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن صدق فيه فهو حلف دلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ kooku mooy sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy liir boo xam ni ñi gën a jige yàlla ñëpp yàlla missionné leen ñuy cent vingt-quatre mille yonent kenn ku ci nekk joxe nga sa message ci liir bi ngeen te sa wàll te juddoogul ba mu juddoo ñi koy ngénte ngi koy ngénte ba mu faatoo ñu ngi koy dëj ngente yi jeexagul dëj yi raafagul kooku mooy sayyiduna muhammad rasulullahi ñi ko jëkk ngente ñooy yonent yi borom am seeni maamadat fatratun min rusulillah basara qaw mahaalikal anbiyaa هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن صك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدم ذكر مدى الدير يقرأ صلى الله عليه وسلم صبرت إلى الدنيا وذلتي لا يسبوت وغرك منها السلم باطنها حربا فدرها وشر لا يقر بك الغرب ينندي بيثرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب آه. لك يا للجن صلى الله عليه وسلم نبي عظيم القدر بالحق مرتضى يعل بمسكنة نتفلان وينحل فلله منه وهو أعلى وأكمل ينبه أمين لإرشاد عباد مؤمنين موي حبيب بأسرار القلوب منبأ آه. جل مكة يا لنجل صلى الله عليه وسلم تيمم به وانوي التبرك باسمه looy tàmbali boo bëggee mu barkeel tàmbalee ku looy fermi boo bëggee barkeel fermee ko turam moo tax Seex Alaaji Maalik ba defar Taysiir mu ne alhamdulillahi si taysiiri yàllaahu nasmat daraayi lahoo yàllaahu yàllaahu mu koy ubbee turu yonent bi bëgg tagg muy tagg yàlla ci turam yi yàlla ko yarub muhammad ak déggam yàlla ak disciplinam yàlla ni bu ngeen bëggee agsi ci man roy muhammad na ma yaroo ngeen yaroo te yar ba nag waaye Maodo ne damay ëpp tànk gën maa yaatule waaye fa mu tegan tànkam falaa koy teg def ko kilifa ba yàlla recevoir ma من يصلي صلاة وتسليما على قمر من نوره خلق الأكوان يالله لو بغ مباركيل تملي كترم متفساشين به يختم الذكر الجميل ويبدأ لولو مولاي جيك ndax leetar boo bëggee buur jot cee day am tembar nga jaale ko yoon tembar yi jëm ci yàlla ba ca gën a walaabal mooy sayyiduna muhammad rasulullahi moo tax ñu ni tembar baa ngoog tayammam bihi wan wi tabarruka bismihi wala taadu fi sayin tariqata rasmi ndax tembar boobu kat photo bi ci nekk yàlla recevoir na borom faqad xasamal mawla loo xayra xasmi taraqa ila sabi tibaaqi bi ismihi ba mu demee surga yàlla yépp ko teelu wa qad asrafat amlaakuha wa tajallati مكة يا محوت بحفظ الله في كل هيئة ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل وسلم मुसि رب امنا अमना وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفى أدواءنا بدوائه يمن الله خير الناس خير جزائه فآثاره أنوارها yow njol makka yaa leen gën sallallahu alayhi wa sallam taraqaa yeneen yëg na umu haani ko invité reer mooy jigéenu Seydina Aliyu ba mu reereer moom fa muy gëmentoo jibril ñëw baaji néeg bi ànd ak motaaram mikaayil ñëw ànd ak motaaram jibril ni ko sa boromale invité guddik tey day seexale ñaari jàkkaam yi masjidul xaraam al masjidul aqsa te ya len di simle fet fa yonent yi nga def réception ba jité ko sokko fekk bëtt asamaan yi malaaka yaa ngi lay teeru tarqa ngal makka yaa leen ngën fasihi laylatal lati kamalil muxtaarifi yaa alal bura istiwau sosihi leya kelete kamimu tari siha alal bura istiwau terkai jal makkele ngel terkai yonin yifnu nyede pare makka nistut jibril liko wacal mu ni ko fii mooy fan mu ni ko fii mooy Madiyana yontu yàlla Suaybu fii la ko yàlla yónni woon Muusaa fekk ko fi ba yàlla mujj ko def bu yonent laata moo dellu Misra ba mu demee ba waadil muqaddas Tuwaa yàlla ni ko faxla' naa alayka yaa Muusaa innaka بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى جبل الوقت يونان تبي منكو كنكم جلي موي ميساس بموسى Moussa يخيال a لا يجلي ma si fi ñaar rakk julli naa fa ñaar rakk moom yonent bi moo ko wax ne julli naa fa ñaar rakk soog a dégg faar ak jigéen torok njël makka yaa leen gën fa lele fi layla sallati kaane سرتها على القرى استواء ترقايون يكن حكم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستور مغا دبار جبريل جبريل دار كو ndey joram ميكائيل دار كو chamanam ومن صاحبه بعد تعرف قدره فهذا ينقي لرسالة صدره وهذا بأمر الله يخدم أمره وسيراه جبريل وميكال إسره فأهلا بشمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يا ترقى يلن يفنه نتوت جبريل نقواتل mu ni ko fii mooy fan mu ni ko fii mooy baytu laxm fii fi la insa nu mariam juddoo yaayam xëyyanu póotam ñëw ci dex gi fóot fekk jibril mu taxaw jibril ak yor benn falaakon pikiir boobu ci la yàlla def insa nu mariam ndeysaan yàllaa ko wax ci alquran nee jibril mariyaamaa ñëw fekk mu taxaw mu ni ko a oos bi rahmaani minka in kunte taqiya jibril ni ko waay bul ma muslu yàlla yaa xamagul li xew man médecin yàlla laa maay jibril moo ma jox falaakoo bi ne daf lay may tey doom bu góor yow doo jàdd yoon te di tey doom bu doom boobee mooy Iisa nu Maryam ni ko innama ana rasulu rabbik la ahaba laki xulaaman zakiya ci wars wala boog li yahubba laki xulaaman zakiya ci njàngum xabs loo ci jàng baax na ni ko ana ana rasul rabbik li aabalaki xulaaman zakiya yàlla ne mariama ni ko nu may amee doom te aw ma sëriñ te duma jàdd yoon xaalat an na yakun lii xulaamun walam yamsasni basarun walam aku baxiya ne bi ko mariama tontoo loolu ne jibril tontuwaat ko ni ko kadalika qaala rabbuka huwa alayhim ne yàlla ne loolu yomb na ko aadama mooy sa maam amul ndey amul baay xawaa mooy sa maam jigéen am baay te amul yaay ma def yaar yooyu moo lay may doom bu góor am yaay te du am baay inna masala isa inda ka masali aadama xalaqa min turabin summa qaala kun fayakun maryaama ni ko bu dee loolu jibril nas ko pikiir ba ni ko mes huit heures maryaamay fóot neuf heures maryaamay weer dix heures eesaa juddu ba mu bootee doomam mag ñi ni ko heure bi dafa gaaw trois heures de temps nga am ci doom yàlla ni ko xoolal balaa adduna tukki maa lay jox ay lay waaye tey dangay ngay déparé kees jëm ci Dakar boo rombee Tingit baraaj yooyu ci wetu mbaaw ay elwaa fa nekk ay ganaar nekk fa nga suy leen puudar ganaar yi neuf heures ganaar yi reg dix heures ganaar yi nen ngay di jaay soo ko mënee fii ci elwas yàlla man ko ci biir mariama sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim ba ñu xam ni yàlla mën na lu ne fa sifi laylatal lati kaanu qistu waaw ليلة التي تعلم تعرفها على الإبرة استواء ترقي njol makka yenen gën taraqa yenen yëg na foofee ba insa juddoo waa penc mi ni yaa uxta maa kaana abu kimra asawin wa maa kaanat ummuki baqiya mariama ni leen man day tey damay werd damay jàpp sama njaamuru ndax koor koor du dara lu dul jàpp sa njaamuru bakkan bi na woor làmmiñ bi na bët bi na tànk bi na loxo bi na woor mu ni man tey nasartu lirrahmaani sawman falam yu kalima yowma insiya ñu ni ko faw di ñu wax xele bi noo ko jure mu junj xele ba bëggulal dagg wirdam ndax wird wax da ko yàq fa asaarat ilayhi qaalu kayfa nu kalimu man kaana fi lmadi sabiya ñu ni ko nu nuy mën waxe xele bu juddu léegi ci bii seer nga sàngu ko fendeegul fa seen kàddu yi daanoo eesaa jóg toog إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا dal di joxañ yaayam ni ko yaay jërëjëf sa coono sonal naa la ci إلي قالوا mu junj yaayam ni ko yaay wa barram bi walidati walam yajal ni jabbaaran taqiya wassalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubasu hayyaa yonent bi nee na foofee Insa juddoo woon jaar fa leelati Israaïl maag escorte bi julli fa ñaar ترقي njal makka yaa leen gën taraqaa yoneen yées na fa si fi laylata lati kaamilin taarifiya alal wara istiwaaw fa si fi laylata lati kaamilin taarifiha alal wara istiwaaw fa si fi लैल बुरा के सारा फिल्म असल सी झुल فسهي ليلة التي كان المختار فيها على البراق استواء ترقي جل مكيا لنبل ترقى من يكنه مدفار بيت اللحم ñëw مسجد الأقصى فكي الله نكو da ngay sim la ñaari jàkka yooyu ci sama tur subhana alladi asra bi abdi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa masjid alharam samay nawleen ko wër te aw ma nawle muy xëram yu masjid alaqsa noonu te yaa koy setal sim leen ñaari jàkka yooyu subhaana allazi asra bi abdi laylan min al masjidil man dong lañ fa war a tudd ila al masjidil man dong lañ fa war a tudd te loolu laa yónni woon yonent yi te yaa leen di fermi kon demal ñu ngi lay teeru tarqay borom raw du baa leen gën saraqaa yeneen yëpp ba mu ñëwee yonent yaa ko teeru yonent yàlla aadam làkk ba mu wàccee yonent yàlla nuux làkk discours ba mu wàccee yonent yàlla daawud lakk discours am ba mu wàccee yonent yàlla ibrahim lakk discours am ba mu wàccee yontu yàlla suleymaan lakk discours am ba mu wàccee yontu yàlla Iisaa lakk discours am ba mu wàccee la Muhammad yi moom bu wàccee géew gi tas kooku mooy sayyiduna Muhammad rasulullah mu ne alhamdulillahi la si أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بصيرا ونصيرا وجعلني فاتحا خاتما الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وجعلني فاتحا خاتما وأنزل عليه الفرقان في تبيان كل شيء بم فأكسي ينتال إبراهيم دا دانو الهر يين يننتي توقع خمي نكي مويسون الباترون دا فضلكم محمد ترقي برم رو دوبالي فسيفي तराए जल मिली लाल तरकीत बम वी न को रहनि वाऊं जो ख़याल न मेसास te yaay suñu iliman ibrahima jab ciirin mu kabbar khalifa babakar ni qaddamahum jami'ul anbiya'i wa rusul fi ridakala yaay ñu ni sama góor ga ba mu lan la war khalifa babakar ne lam war gaaw na ta bari dori jamaa برجميع انتباهي لو يرجو إلى آفاق لنري من آياتنا إنه هو سميع البصير خليفة بابا كرني li ko yàlla ni dama ko koy won won na ko ko rahu rabbul arsima kada min al anwar ma yaxsaaw kooku mooy sayyiduna eh, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Maodo fukk la appelé baa ngay langaan mu toog caag Jibril ñu tuut mu fëgg asamaanu benneel ñu ne kooku kan la mu ni mën a Jibril ko ko àndal sariir mi foor na baaje nga asamaan yi mbaadu bufta daawol mu ni déewal laay ke ñu bind bufta ci barkeem moom laa jëli woon kooku mooy sayyiduna muhammad rasulullah ñu ne cëy ni kaccit ubbi aadamaa teeru ak malaakaam ñu teeru ko misigal ko rëkkal ko junj nga na bi gërëm leen taraqaay njol makka yaalim gën yonent gis naa fay malaaka ñu yore bindu fas dëkke yow fas film la taraqaay yonen yiif na dana na ploongay la mu tontu ak jibil ni tuut mu fëgg asamaanu ñaareel ñu ni kooku kan la mu ni mën a jibil ni ko koo sariir mi foor baaje nga asamaan yi mu ni sayidu siddiqin kooku mooy sayiduna eh, muhammad rasulullahi ñu ni eskey ni kat cib ubbi Iisaa nga taxaw ak i malaakaam ñu teeru ko ñi sigal ko rëkkal ko duni nga asamaan na bi sant leen gërëm leen taraqa eh, borom raw du baa leen gën taraqaa yóneen yi yëpp na dana nappaloo ngay langaan mu tong caab jibril ni tuut mu fëgg asamaanu ñetteel ñu ni kooku kan la mu ni mën a jibril ñu ni ko ko àndal sariir mi foor na bàjje nga asamaan mu ni sayidul muqarrabin kooku mooy sayiduna muhammad rasulullah ñu ni iski ni kaccit ubbi yuusufa ko teeru ak malaakaam ñu teeru ko misigal ko rëkkal ko junni nga asamaan na bi sant leen gërëm leen taraqaa njol makka yaa leen gën taraqaa yonen yéeg na benn ploo ngay la ngaan mu tong ca jibil ni tuut mu fëgg asamaanu ñeenteel ñu ni kooku kan la mu ni mën jibril ñu ne ko koo àndal sariir mi foor na baaje nga asamaan yi mu ni sayidu saalihin kooku mooy sayiduna muhammad rasulullahi ñu ni eski ni kaccit ubbi idrisa ngi taxaw ak malaakaam ñu teeru ko ñu sigal ko rëkkal ko juñu nga asamaan na bi sant leen gërëm leen talaqa borom raw du baaleen gën yonent bi nee na gis naa fa malaaka mu yore melow nag nag wa nag mu ngi jaar ci benn volontaire te xaju ca ndax réyaay ba mu ca buut buutee ba daanu bëgg ca jaaraat xajul ca volontaire ba ma ni jibril laajal ma lii mooy lan jibril laaj ko mu ni kàddoo ngoog bala nga wax ci mbooloo seet ko ku wax moomatoo ko taraqaay borom raw du bàyyi leen gën taraqaay yu leen na benn nappaloo ngay langaan mu tom caag jibil ni tuut mu sëgg asamaan ni juróomeel ñu ni kan la mu ni mën a jibril ko ko àndal sariir mi foor na bàjja nga mu ni sayidul lambiya kooku mooy sayiduna muhammad rasulullah ñu ni eskee waay ni kaccit ubbi haaroona ngi taxaw ak malaakaam ñu teeru ko misigal ko rëkkal ko junni asamaan na bi sant leen gërëm leen taraqay borom raw du baa leen gën taraqaa yoneen yëpp na rajo yàlla topp te naan ba tey président àggagul waxu bil ufiqil ala fasifi ليلة التي كريم تعرف على البراك استواء ترقى njol makke leen gën taraqa yo leen yëg na dana na ploo ngay mu toog caag jibril ni tuut u fëgg asamaan juróom benn ñu ni kooku kan la mu ni mën jibril ñu ni ko ko àndal mi foor na bàjje nga yi mu ni sayyidul muqarrabin kooku moy sayyiduna eh, muhammad rasulullah ñu ni way ni kaccit ubbi xolal musa ngi taxaw ak malaakaam ñu teru ko misigal ko rekkal ko jinni nabi sant leen leen eh, borom tanti be leen gën ben na plo ngay la mu jibril nit mu fëgg asamaani juróom-ñaar ñu ni kooku kan la mu ni mën a jibril ñu ni ko koo àndal sariir mi foor na baaja nga asamaan yi mu ni sayidul muqarrabin kooku mooy sayiduna muhammad rasulullahi ñu ni kii waay ni kat cit ubbi yonent yàlla moo ko teeru ak malaakaam ñu teeru ko ñu sigal ko rëkkal ko di ñu nga na bi sant leen gërëm torop borom raw du baaleen gën benn waaye ni ma mbay waaw lu tax yonent yi teeru ko ba noppi ba noppi nga nekk asamaan yi yonent yaa ko teeru man leen président de la république mën naa ànd ak ministre départ à Dakar dëkk bu ñu dem bu dem réewum ministre ba teeru ko torop borom raw du baaleen gën xasi fii ليلة التي كان تعرفي على الكسوة ترقى جل مكة يولن ترقى يولن يكن بل أبلون لنغان جروم ناري أبلون مدس نت بل أبلون لنغان متوم تاك جبين نتوت جبين فج سفرة سيد الحاج مالي xam naa directeuru safara nan la tudd ñu ne Maodo nu mu tudd mu ne Malick niiraan la tudd ñu ne Maodo waaw directeuru safara mbaa du lakk ci safara wi Maodo ni seetal cent mètres carrés ba ko tiim mu ngi ca kaso ba te ka ca dëkk ñëwul kaso fasi fi laylatallati taarifiya alwa qistiwa taraqa yoo leen yëkku ba ñu demee directeur ba jibril fëgg directeur bi ni ko kooku kan la mu ni ko mën a jibril mu ni ko ki nga àndal kan la mu ni ko ki ma àndal safara barkeema àjjana barkeema ma woye ko ca kees sama benn doom ni safara di aw aljana di bànneex nu mu nekk barke moomat lee di barkeem ni ko simon bi tabax saameeb kaare mooy simon ba tabax cité ya simon bi tabax cité yi mooy simon bi tabax kaso yi yaay seet fa ngay dëkkee mooy xaqiqatul kawni lu dul yàlla ci muhammad la génne mooy aynu zaat mooy tal atwaa mooy ifaadatullaahi mooy nuurullahi yàllaahu lépp jamaa alquranu fi muhammad liannahu ramsullati lam yutaxad taraqaa yoneen yëg na kooku nag Cheikh Tidiane Sy ko wax bañ demee jibril fëgg yonent bi nee na wisit naa ko ñaanal sama xeet yàlla musal leen ci sawara benn nappaloo ngay langaan mu tontu ak jibril ñu dem ci muntaha déem ga leer la xob ya leer la doom ya leer la foofee la ko jibril tàggoo ni ko nuyul ma sa boroom yonent bi ni ko afi asal makaan yatrukul qalilu qalila nu ànd nga dima wéttuli asamaan yi ba nu ñëw danaa fi lay yem muniko wallahi buma passé fi léri damay lak wa ma minna illa la maqamul ma'lum yonent bina la na tini khol téene gis ben xambaar xambaar woni ne tàcc ben ap lo la ci yàlla yor moy raf-raf ci la dug mu fi taxan man batti juróom-ñaar fukki junni kiiraay lëndëm yi bama ag nak nag ba ma dégg sa borom باتم بنان سبحاني سبحاني وسعت رحمتي غدبي فوسونا فلاتي مويت دق بات او بكر بات بني كيف يا محمد ان ربك يصلي نسمو فيت ديلوسي ني ما دغات بات بات بنان سبحاني سبحاني وسعت رحمتي xadab yi nee ndeke yoo yàlla kilifa gu lewet day fexe ba njabootam ñeme ko bañ koo yàq looloo tax yàlla delloo si yonent bi ndenee tiitoon na waaye fa jaa abihi naxwal ilaaji tabibu ne yàlla jël loxoom ne bu doon loxo ne moom la loxo tollool mu raay ko ci bopp ma yëg seddaay ba ba sama diggante ñaari sësi ween وجدت بردا بين ثديي نينا حضران ببكك التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله نعم مرير ردوبه نما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نعم نانا سمن جبر السلام علينا وعلى عباد الله سالين يلا نكو جلين بوك yaa koy jël si ndax damaa ñor ku ko def te rafetal ko rafetal rukooya rafetal sujjóot yi rafetal njàngin ma teewlu ma kookaan terewu ma bu ko yëgee ak bu ko yëgul yépp ruuxam danaa ko recevoir fii moo tax Cheikh Tidiane si ne ku ko julli ab di ngay miin koo gisul aasi bi bukratiya muy julli suba aasi bi xarratiha muy tisbaar aasi bi xumratiha muy takkusaan aasi bi wustaaha mooy timis aasi bi sulmatiha mooy jullit gee is yaskunuuna laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaaha loolu moo tax sidaay Malik def ko tartib tënk ci njabootam ñaalal buraaqi saraa في المنتهى لونه جاء الخلاف فراجع جل كتبيمي motax julle ngok non la ko yonent bi jëlé koor nak dañoo toog mu ñëw asaka dañoo toog mu ñëw aj dañoo toog mu ñëw waaye julli gaayo ñor yàlla fa yaa rabbana fi ardihi wa samaayi amitna ala tasdiqi bistifaayi fa inna وصل أسواق يا يا بداي يسق علينا العيس دون لقاي إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا لو الموتخ بي لو القدم المعلوم في البأس والنداء ينبي فقد وهب الأغلاق واستلم العباد ففي كل خير جملة بلغ المدى بواتن نور ظواهر هدى فلا هجو يخفى ولا نور يخبو ألم تر أن الله آواه إحواه بغير حرائم للمعالي الذي نوى فلما أديل القربى من وحشة النوى أفقنا به من غبرة الغي والهوى فلا تب ما دوم ولا ندح مرجحا آه. يل مكيال الجن لا لتحصيلته فوق القصوص مسيئة ينندي سنته إليها قسمة أدائية مكانته في المرسلين علية ينندي أنا رتوح حسان وعقلين جلية فلا الوهم يستولي ولا يقرأ آه. قال مكة يا أهل صلى الله عليه وسلم لا لا تخجل لي أنبوك يالا جوكو محمد بوخي ني سباي سباي كونتان نخي ني سياي sa yaay kontaan nga xëy sa doom nii nga kontaan yàlla ne boo amee ndijaay bala ngeen a xëy di ngeen ma nuyu ndax bàyyi daa yilif ndey yilif doom ñu yilif ko waaye ma bind bàyyi bind doom bind ndey moo tax Maodo ne bul xëy mukk te ni woo sa boroom wa xuqa li salaatan farada تفردا فيا ربنا في أرضي وسمائي أمتنا على تصديقي بسواي فإنا وسل أسواق يا يا بدائي يسق علينا العيس دون الكيه إذا الدين لم يكن त सिया